man maa ngi tudd donc Karounga Camara man maa maay coordonnateur général réseau Ndaari réseau Ndaari comme ni mu ko waxee léegi benn kuréel la ba nga xam ne dafa lënkale aji way tukki maanaam ay Sénégal yu neewoon bitim yow te ñibbisi mais aussi ay sénégalais yu nekk bitim réew ba tey te am na yéen a ñu bis si biir réew mi donc réseau la ba nga xam ne am na ay membres fii ci Sénégal waaye am nañ aussi ay membres ca bitim réew rawatina Italie France Espagne Portugal Belgique États-Unis ak yeneen réew donc li tax a jóg réseau bi mooy wax naa ko léegi mooy renforcer lu ñuy wax pouvoir d'agir maanaam fexe ba ñu am lu ñuy waxee sañ jëf ndax boo amul sañ-sañu jëf doo nekk lu ñuy wax acteur de développement pour nga bokk ci comme bi day jafe te immigration nekk na la nga xam ne patrimoine la am na amaana sénégalais yi xamaguñ ko bu baax même acteurs yi maanaam diaspora bi sax xamuñu lan mooy seen véritable valeur ndax bari na réew yu développé ci àdduna bi c'est grâce à l'immigration si lañ développé boo jëlee dëkk bu mel ni Italie c'est un pays ba nga xam ni ay immigrés yu mag lañ amoon boo xoolee italiens yi wër nañ àdduna bi ñoo nekk nekkoon nañ Brésil nekk nañ États-Unis boo demee Brésil y a vingt cinq millions de brésiliens qui sont d'origine italienne boo demee Argentine da ngay beaucoup trouver beaucoup d'italien boo demee États-Unis tamit bare na fa ay origine bare na fa ay italiens yu yor ay turu am italien ay américain américains du West yor ay turu italien sax ya nga xam ni seeni maam ñoo nekkoon ay italiens mën naa ci citer ñu célèbre ay Leonardo DiCaprio nga xam ne acteur bu mag la turam turu italien la maamam mooy italien ay woykat boobu ñu wax Madonna wala ay Sylvester Stallone ñoo ñëpp ngay dégg seeni i maam wala seeni i baay Italie lañ jógee woon ñëw ñu nekk foofu donc te Italie léegi bokk na si pays ba nga xam ni pays ya nga xam ne day accueillir ay immigré donc joo jëlee pays yu mel ni Chine Chine bu développé diaspora chinoise moo ko développé ñoo demoon Europe ak Amérique dellu si waat seen réew développé ko mel ni Brésil Malaisie wala Singapour yëpp donc Afrique rawatina Sénégal mënul mucc ci loolu c'est-à-dire que développement Sénégal foog aussi diaspora bi dugal ci loxoom ndax dañoo dem am leneen lu ñu gis mais nag bu ñu amee leneen lu ñu gis ñëw aussi dañ ko war a bokk ak wala jël xam-xam ak xalaat ak euh, xarañte ñi fi toog te demuñu parce que ñi fi toog tamit am nañ li ma koy faral di wax sama mbokk Moodu Moodu mooy parfois bu ñu ñibbisee erreur bu ñuy njëkk a def mooy dañuy yaakaar ñoo raw ñu nekk fii te loolu erreur bu mag la ndax ñii am na aussi lu ñu xam lu bare yow loo xamul mais amaana bu ñu lënkalee loolu yëpp maanaam bu ñu ko boolee rassembler on peut faire de grandes choses et loolu nag la def biir réseau Ndaar yi maanaam dañuy capitaliser suñuy expérience ndax nag tukki nag même boo fa amul alal sax di nga fa jëlee expérience et expérience boobu la ñuy capitaliser ba moo ñu permettre aujourd'hui ñuy def ay activités yu bare ba boolee ñu ci ay programme yu mel ni archipelago ñu bokk ci comme ni nga ko waxee léegi ak chambre de commerce bu Thiès ak chambre de commerce bu mu nekk am solo tey nag ñu réunir fii mu nekk ci benn causerie ba nga xam ne dañuy waxtaan ndaw yi parce que dama am yaakaar ne Sénégal dañuy fàttee loolu parfois ndaw doo ko taaj rek naan ko lii ngay def lii ngay def lii da nga koy déglu d'abord et que parce que ñoom it am nañ xalaat am nañ xam-xam yaa nga xam ni buñ ko waxtaanee je pense que war nañ ci mën a trouver ay solution loolu moo tax ñu créé tey lu ñu tuddee causerie bi. et bien sûr parce que effectivement je pense que tànneef bi am na cohérence euh, parce que boo tànnee xam ne aussi dañoo nekk ay zones vulnérables am ña nga ne aussi ndaw lañ bëgg a jàng ak ña nga xam ne ñoo tukki woon ñibbisi loolu je pense tànneef bu am solo la et que loolu yëpp mooy li may wax nii léegi rek parce que wax naa ko sànq ci ci ci ci sama sama ci sama bu koy wax ci naasarang nee naa leen problème yi ñu am ci réew mi mooy d'abord lu ñuy tuddee problème mu information information bi voir la vraie information dañ koy xaw a fàtte dañoo am aussi problème mu formation li may tuddee la vraie formation am lu ñuy tuddee aussi problème orientation lu la vraie orientation bu may information maanaam ñu bare ñoo yaakaar ni parce que loolu tukki moom mooy tekki donc ñu bare information bu ñu am mooy boo demee tukki da nga war a réussir alors que ça c'est pas la bonne information beneen information bu nit am aussi mooy que réew mi metti na. que Afrique boo fi nekkee waroo fee réussir loolu aussi c'est une mauvaise information parce que fii bari na ña nga xam ni mosuñoo génn réew mi mais actuellement construire nañ fi ay empire maanaam créé nañ fi la nga xam ni ñi tukki sax créé wuñ ko fi donc mën ngaa tukki tekki mais mën ngaa toog si réew mi aussi liggéey fi la nga xam ni ku tukki liggéeyu ko fi donc information bi il faut que jeune ko am ko ne dëkk bi am na ay opportunité ya nga xam dañ ko war a saisir deuxièmement dañ leen war formation de formation métier rek mais aussi même formation mentale psychologique foog ñu jàngal aussi africains yi sénégalais ñu nekkaat ay africains nekkaat ay sénégalais parce que loolu aussi je pense que un des problèmes ñun on a cessé d'être des sénégalais dañoo bàyyi nekk ay africains alors que dañoo war a nekkaat ay africains nekkaat ay africains mooy gëmaat ne ñun war nañoo mën a développer suñu réew et ñun ñoo ko mën a développer du tubaab bi du Masamba du Mademba donc loolu boobu suñ ko war a defal nit loolu moo moom moom moo tax causerie yu mel ni am solo parce que loolu mënoo ko def tant que woo boy yi ñoom ñooy kan parce que boo xamul yow yaay kan rek c'est un peu difficile pour nga mën a euh, percer ci beneen mbir mi et enfin troisième personne troisième méthode bi nag moom mooy li ñuy wax l'orientation foog ñu orienter xale yi orienter leen mooy wan leen yan créneau porteur porteur moo fi nekk ak yan opportunité ñoo nekk si biir réew mi te bare na nag réew mi il y a aussi encore énormément de choses à faire et on peut parce que réew mi il y de terres cultivables maanaam suuf su fi nekk ñu mën koo bay bare na fi soleil mu ngi fi jant baa ngi fi du fi jeex tàkk énergie lu ñuy wax énergie bare na fi lu ñuy wax ressources minières ak énergétique aussi bare na fi lu ñuy wax aussi nag population jeune parce que sunu population ay ndaw la ñun te population boobu ñooy mën a développer réew mënul développer amul population jeune donc ci cadre boobu nag la ñu war a orienter jeunes yi comme ni mu ko waxee informer leen former leen orienter leen ba ñu am li ñuy bëgg a am incha